topp di kaj kaj yi kaj suba ngoon di saaga di xuloo. ayez le courage de la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi. seen toog sa ordinateur di tapé di kaj kaj yi kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo. ayez le courage de la vérité au Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran yi. ngir ragal gouvernement bi. di leen sant bu baax mbokk yi ñuy bàyyi xel ci sans limite tribune d'actualité tey ñu ci ànd ak euh, Pape euh, Assane euh, Seck gëjoon na fii lool lool lool ci tribune d'actualité waaye yàlla def na tey incha allah ak moom la ñu fas yéene àndal apprécier li fi actualité ci réew mi dinañ taxaw ci week-end bi xam ngeen ni li ci am ci ay caravane ak meeting ci. Euh, euh, ñi nga xam te ñooy ci candidat yi ak kàddu yi nga xam te ne ñu ngi koy joxar biyante diggante Amadou Ba Bassirou euh, Diomaye fay yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw du ñàkk également ndax yéen a ngi koy gis di déclaration ki nga xamante ne mooy maître Moussa Bokar Thiam di maire bu Ourossogui am nu mu waxee ah, ci bi muy ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, ñuy jàppal tànk Amadou Ba foofee ca euh, Fouta euh, loolu yëpp nañ ci taxaw ak yeneen ci ay actualité gën ko faram-fàcce Pape Assane Seck maa ngi laa nuyu bu baax. bisimilah rahmaani rahim ak koor gi. bàyyi la nga nuyu ak ñuy bàyyi xel ma ne di seet noo def ak koor gi. bismillahi rahmaani rahim aousubillahi min shaitan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu yaa seydi waaw moom dëkk bi dafa ànd ak genre poussière poussière waaw day sedd nga ne sedd na vrai quoi tàng jaxasoo kenn xam moo tax ñëpp xurfaan fu ne nii moom <clears throat> ku yóbboo wut ngun-ngun ak kii garab yooyu nañ ko xam yow pharmacie yi nu ñu bëgg a daajale sëñ bi dañoo war a na wut ngun-ngun ak kii <laughs> ak pourtant yi ngay wax nii ni billaay ni da koy café te fekk na mooy mooy remède yi la yéen saa yi nga dem ci garab yee doo ci am daara benn borom xam-xam moo ma ne Baye Assane on a plus de mille variété de plantes dans ce ak leneen ak leneen yoo xam ne tubaab yi ñoo ñëw di ko gëstu di gàddu di dem te bi Covid amee ci diggante boobu noonu lañ commencé na xaaral ñu delluwaat ci plante yi. xoolil laajal sunu mbokk waa diaspora ku ci am dinjeer. Hmm. laaj leen laaj leen ku jeexal seen i dinjeer ca Covid ba. ñooma seen i voisins tubaab ñooma. te jus là <laughs> xam nga jinjeer am noo ko dóore rek vite fait. yii mu def effet da ngay tàng jër. commencé ay te tey tey da ngay cocc ngay def. te loolu dara la. mais kontaan na ma nuyu na ma la. ma ne ka la ñu gëj a def tribune d'actualité. waaw waaw waaw war naa def. jege na weer de. Ah waaw bi ñu fi mujjee def moom ñu ngi woon ci yeneen xalaat ñoon sax dinañ yegg ci. ci ah. séquence yi ñuy dund jamono ji ñu ngiy dund séquence yu. waaw. tantôt da nga naan alhamdulilah euh, hmm. voilà un nouveau vent va souffler jeex na oui. tantôt tu te poses des questions mais une chose est certaine. mooy. Oui. bah écoute un nouveau vent va souffler incha allah. ah, ah. ah oui c'est le vent du changement. du changement oh yàlla nañ ko fekkee te tal ko. Ah, yàgg di ko dund bu ñëw rek gën a baax moroomam. Hmm. vraiment ce pays a besoin d'oxygène. on a besoin de dégarnir de décongestionner de décentraliser de voilà faire de sorte que les gens puissent ça y est, hmm. respirer on a besoin d'un d'un vent nouveau d'un air différent yow yow su ne nit ñi talatuñu dara dara ñëpp a ngi nekk ci voilà luy xew luy xew mm. alors que les gens doivent le pays doit fonctionner sëñ bi. c'est dommage quoi ñu nekk ci niveau bi di maanaam mel ni dara leerul alors que Pape Ousmane mm. aujourd'hui on devait s'asseoir mm. média presse nekk ci xamalan sunu suñu taux de croissance bi mu tollee à tel niveau par exemple à onze donc à deux chiffres am nañ ci lii en termes de résultante et de résultat qu'aujourd'hui tel investissement a été fait sur l'éducation sur sur la santé dans le domaine du sport dans le domaine de la culture des arts donc voilà les gens les secteurs bougent l'industrie est à flot à floraison ça bouge genre ouais, mais comme APR échoué nañ ba fii man seen échec sax daf ma daf ma jaaxal hmm. oui oui oui ils avaient tout pour réussir réussir ñoom nag nee nañu échoué wuñu amul problème. justement ak ni ñu taxawaatee nii gis nga. taxawaat fa ah sentiroo ni ñu ngi fi mu ne nii ci dernier dernier virage bi commencé nañoo nàmm seen i jaaj dégg nga sax ma Macky Sall fas yéene na dugg ci langue ji moom it ni Ousmane Sonko di def ak Diomaye noonu la fas yéene def ak Amadou Ba <laughs> ah Paa est-ce que loolu mënul changer la donne wala. <laughs> ah wala wala seenoo loolu. yàlla ñu yàlla may fekk <laughs> ak tal. yàlla ñu yàlla may fekk ak tal yàlla yàlla may fekk ak xam nga tax may de. Ah. xam naa ni daal mag du nax boppam. ah te itam mag du këpp boppam ndox bu bon. wala boog ndox rek rawatina ndox bu bon. ndax euh, dund nañ fii loo xam ni saa yu 12 ans yii ak APR gii yii xam nga fan yële maa ngi la naan man bu ma doon Amadou Ba dama naan du man de ñii la. waaw. parce que tey jii nii waa APR jàppale Amadou Ba pour man Amadou Ba du ci gagné dara dara ah. au contraire au contraire day tax ni non day tax sax nit ñi joxe day tax sax nit ñi mobiliser un peu partout responsable yi bankoon seen i yoxoo gis commencé nañ di wane ni tey la fi nekk mu mel ni daal dañoo lâché ñëpp ñu bëgg a rattraper yëpp ci semaine bi ce n'est pas une question de responsable yu mobilisé aux législatives et aux territoriales hmm. élections territoriales ils avaient mobilisé non ils unis non. Hmm. ils étaient en bloc non. terewul opposition bi ñëw en ak doole. Hmm. te boobu local la ak territorial ak ak ak kii législatif. Hmm. bi yoon présidentiel la l' ensemble des sénégalais ñi ci ëpp ci li fës yàkkamti changement. non aujourd'hui si moi je devais conseiller Amadou Ba dama naan ko bul sonal sa bopp waa APR bala wala ñu bañ la mooy chance bi nga am. mooy yow APR yow APR seen i mbir boo ci taqee nii doo doo kii de. doo toj de APR. <laughs> APR di seen i mbir comme kii. laa ilaha illallah yow ñii li ñu dundaloo fii sëñ bi wala yow yi ko loolu. di fàttali ñu. Pape Ousmane yow yaa ngi fàttali bi ñu fi toog bi président Macky Sall di wax ne du nekk candidat. waaye dëkk bi mel ni ñu ñu ñu ñu tekki. nga ñëw feeg mayo ah waaw fàttali Sénégal waaw waaw nit ñi mel ni ñu ñu firi. ça veut tout dire. aujourd'hui sénégalais yi kaka nangoo kaka nangul ñi ci mm. ëpp dañ ne am alhamdulilah gasi waaye nag mm. lenn li ma yàgg a wax di ko gëm euh, APR Benno Bokk Yaakaar ci li feeñ mm. bëgguñu seen candidat waaye seen candidat moom kontewul si ñoom ci li mu waneegum nii kontewul si ñoom kontewul si ñoom de Amadou Ba de kontewul si ñoom de saa nit boo ko wonee bët boo ko xoolee ay bët bëgguma la nii. même bu dee àndaat ngeen nii sax moom moom loolu la jàpp. mën na maslaa nag rafetal parce que circonstance mais au fond xam na ni yow mi bëggoo ko. Hmm. mooy tuddee. Hmm. ay bu faloo. <laughs> Amadou est-ce que de loolu la ñu comprendre ñoom lu waral kon mu mel ni comme si garantie. yi Amadou war a war seen xel dalul ci moom. parce que mës naa dégg président Macky Sall di wax ni li des mooy da war a dalal xel yi. Ah. dalal xel boobu noonu. ah dalal xel kay <laughs> moo moo moog dalal jàmmayam rek <laughs> mooy lu leerul lu lëndëm ñu <laughs> ñu apaiser les cœurs de sort que nit ñi xaw a am yaakaar saay réew Sénégal bi. Hmm. incha allahu rabbi. même président Macky Sall sax bu fekkoon moom mooy ñëwaat toogaat maar day um ne ñu ne moom lay faluwaat. moom la mu doon def mënatul ne. mënatu ko ne c'est fini ça. loolu si saa yi loolu c'est fini. mooy par exemple di buur di bummi waaw di gaañaate dóore rayee kii. àdduna bi ñootul ñootul nangu loolu c'est fini c'est inéluctable. aujourd'hui il faut aider le président Macky Sall à partir sereinement et je pense que c'est le cas mm. tranquillement voilà mu dem ak njabootam ñu ne si jàmm bu ko neexee toog Sénégal bu ko neexee loolu am problème sénégalais yi so xam nga sénégalais mooy le peuple le mooy peuple boo xam ni nous nous ne sommes pas nous n'avons pas cet instinct bestial qui fait que dañuy dañuy yow rek def nit lu bon il faut mu am lu ko lu ko justifier il faut que mu am euh, voilà même l'agresseur qui qui mérite toutes les euh, écoute qui mérite euh, Euh, ñu ñu sanctionné ko écoute même cet agresseur am na luy expliquer mu nekk agresseur moo ne dañ ko teg ay jafe-jafe mook famille yam ba affaire bi jaxasoo ba mm. ba mu ñàkk gëmadi yàlla mu wee mu mu mu ñànki dugg mm. ci mais le sénégalais l'homme sénégalais sis dans sa chance et essence mm. est quelqu'un de purement bien environnement na nag environnement contexte yooyu mooy jaxase affaire mais tey jii nii euh, président Macky Sall mën na toog fii bu boobaa ngay xam sénégalais. Ah. nooy dajeeg moom ne ko ah monsieur le président ah Sall Sall Sall nam nañ la de. Ah. sénégalais mel noonu. nga gis mu daal di ah ñu ne ko ay nga gis sénégalais bu dëgër fit ni Baye Assane naan ko président yow da war a ñëwaat parce que affaire yi dafa compliqué. yàlla yàlla nañ ci yàlla musal. laa xaw la wala eh am na sax ñoo xam ne dàquñu possibilité bi la pour que. non non non mu annoncé kambaagam. non président Sall na dox yeneen il a il de projet na na yàlla dimbali mu gérer yeneen mu doy na sëkk fi ñu mais Pazal yaa ngi junj ay perspectives bëgg naa su ma jeexal ma ñëw ci loolu mooy def xaar le nouveau président. bi mhm. ñu war a fal incha allah. fii ak juróom gën kaa bëri. juróom-benni fan. noo comprendre attaque yi Ousmane Sonko yëkkati jamono ji ci kaw Amadou Ba ndax amaru Ba moom dafa jàpp ni li muy find rek mooy ni xam nañu ni moom ak i gaayam ni am na lu ñu ragal que ñoom ils sont proches de la victoire. xam nañ ni moom moo fi ne waaw ñoom Amadou Ba ak ay ñooñam noonu lañ noonu lañ ko déggee attaques yi parce que Ousmane Sonko attaqué wul kenn ku dul Amadou Ba parce que xam na ni moo fi ne. leen daal dinaa ko wax. Hmm. bala may tontu sa question boobu. Euh, dama am benn benn coup de gueule. ah waaw benn coup de gueule à l'endroit de maître Moussa Bokar Thiam. maa ngi koy tudd sànq may tàmbali. parce que bu bu ni mu waxee. Hmm. ni ma ko déggee mu waxee ci seen meeting boobu amoon hmm. démb. mu amoon même menace yi defoon ko au législative. Hmm. noonu mu waxee noonu. est-ce que xam nga mooy li gën a gaaw pour Amadou Ba perte élection yi. au nom de quoi maître Moussa Ba man je me mais kii xanaa amul ay nit yu toog moom di liggéey ak moom on a énormément de respect à son endroit mais moom il ne respecte pas les Sénégalais nan ban culot la maître non avec quel culot se permet-il xool Sénégalais yi si ay bët taxaw di meeting naan Ouro Sogui maanaam sama mbokk wala fii laay waxal non dama koy teg ñëpp dégg non dafa am loo xam ni loolu kenn ko def heureusement que nous sommes un peuple majeur et intelligent mënuñoo jaxase kenn mënuñoo jaxase. Mm. benn lanu ay bokk lañ ñun ñëpp. Mm. lii dama kaa teg ñëpp dégg ko. kàddu ga ñaaw la. Mm. kàddu ga ñaaw la. heureusement heureusement heureusement wuroso gi. ay nit yu baax fa dëkk. ay nit yu am classe am personnalité. bëgg seen bopp xam seen bopp. noo la gën a xam ne li muy wax ni du waxi nit. parce que xam nga lu tax. dëkk bu nekk ci Sénégal. xeet yi maanaam amul dëkk boo xam dañu naan fii ñii rek a fi nekk da ngay fokk fekk wolof yi podoor fekk leen maatam hmm. fekk leen Ourossogui yi fekk leen feneen. fekk fa lébu yi fekk fa njaago yi fekk fa Mankañ fekk fa ñëpp noonu Casamance noonu Ndar noonu ndakaar noonu feneen ak feneen mën nga ñëw nag nga ne ah ñii kat ñoo sanc fi ñii ñoo leen fekk si ñii ñoo nangam. mais daanaka l'homme et naturellement voyageur donc ñun ñëpp benn lañu. Hmm. mais toog ci election bu ñu jëm naan Wuro Sogi maa ngi wax ak sama mbokk wolof yi menuisier ouvrier yéen ñi nekk fii dimanche lépp dina leer xaw ma lundi lépp dina leer maa ngi xipp samay bët baa xippee say bët and what else door nit ñi wala da nga leen di fekk seen kër yi maître Moussa Bokar Thiam koo fekk ci këram moomuñu la il faut que en fait tu te rends compte pourquoi APR échoue voilà cet état d'esprit qui fait que dañuy échouer tout le temps parce que fi ñuy yóbbu niveau bi ak fi affaire bi war a nekk du foofu. Mm. ok tu viens me dire boo boo votelul Amadou parce que bu ngeen votelul Amadou Ba mooy jàppalewu leen dëkk bi ah jàppale dëkk bi mooy maître Moussa Bokar Thiam amul quelqu'un d'autre du Pastef qui peut habiter Ourossogui amul quelqu'un d'autre de Taxaw qui peut habiter Ourossogui amul quelqu'un d'autre de de comment il s'appelle Boubacar Camara ou al ou Pur wala mm. feneen ku mën a dëkk Ourossogui pour defar dëkk bi président bi falu wuro dafay ñëw beddi Ourossogui Hmm. mais c'est pas sérieux maître Moussa Bokar Thiam man maay jàkkaarloog aw hmm. sénégalais xool la ci bët ne di la ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. seetaatal ni nga doxalee ak ni nga waxee kilifa bi dama la def kilifa pour wekk la pour fonk la pour war la ni la nit nga ba am xel vous êtes doté de raison et civilement correct voire correctement civilisé par conséquent vous ne pouvez, vous ne pouvez pas en tant qu'avocat tenir certains propos Maître Moussa Bokar Thiam il était si gentil et doux et tendre à la faculté de droit il peut pas se comporter comme ça saa yi xaalis neex na de am am am nguur nii parce que Maître Moussa Bokar Thiam moom kott ci micro mbedd du waxee nii mais parce que am na ñu la dar gis nga sécurité droite gis nga sécurité gauche ay gars bien garnis là mm. bien bâti mm. voilà nga ne ba lu ma neex wax non parce que faaka amee ñeneen am ko fa ah nañ waxante dëgg ah. faaka amee rek ñeneen am ko fa ba leen nooy xew u yor la leen neex ñeneen yor la leen neex nan lay demee il faut ñu def yi fi nit Maître Moussa Bokar on a énormément dégâts mais please quoi please dimbali ñu bu ñu indil problème o hmm. local c'était comme ça législatif c'est ay menaces say kii tey jii nii waa PUR bu ñu nee dañuy wàcc wu Rosso gi da cee mën dara damay laaj ndax mën na ci dara mënoo ci dara fu ne lañu war a jaar ci non dama ne tey bu dee beneen parti politique wala ñeneen ak ñeneen riiru Ousmane Sonko bi ak Jomaay bu ñu nee dañuy wàcc wërësoo gi. moom mi ah. dajee mën dara. il faut un moment donné ñu arrêter ces histoires de menacer les gens. Hmm. ces histoires d'attaquer les gens dans un sens ou l'autre c'est-à-dire à la limite de personnaliser l'affaire de comme si c'est quoi dama bëgg da nga falu. waaw même Moussa Bocar Thiam bi nga faloo ba tey. falu nga def nañ la ministre. qu'est-ce que vous avez fait pour la communication pour la presse en général pour les médias en général nga ci li nga mën baax na amul problème quoi. décence on peut pas parler comme ça à léegi man ma nekk wolof dëkk Ourossogui wala ma nekk menuisier di liggéey Ourossogui mooy que je suis dans la ci benn antisou bu ma voté lu Amadou Ba boo matul dinaa am problème lundi wala mardi qu'est-ce que ça veut dire ah oui perception boobu nga am ci discours am ak la mu wax yëpp euh, que ni dafa menacer ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, population yi que ni ku def neneen nu dul ni mu ah, bëggee. j'aurais bien aimé bu ma tegee lii. Ah. maître Moussa Bocar Thiam daal loolu ma dégg ngeen teg ko Baye Assane c'est sans sans limite. Hmm. du man maa ko wax lu ñu monté la. ah. j'aurais bien aimé. yegg na foofu. j'aurais bien aimé. non ah. attends non il faut ma teg ko. Pape. waaw Sénégal. Hmm. dañ ko war a defar. Pape Ousmane dañu am ay njaboot ñun ñun mënuñu dem fenn. Hmm. feneen fu ñu demee du suñu dëkk. du suñu dëkk du suñu dëkk hmm. xaaral rek ma war la dafa am loo xam ni dafa ñaaw quoi hmm. jekkul sax man dama ciy ruus bu dee lii moom hmm. mooy Amadou Ba du gañe bii nii nii mooy li gën a gaaw pour bañ a gañe saa yi baa waxee loolu ñun ñëpp ñu siisu baa siisoo nu siisu bu ngeen defee lii ma def li ñun tam na leen baa defee li nu def li nu muy demee nu muy demee am na loo xam du waxu nit bu yeboo met Moussa Bocar Thiam excusé wu ci loolu rafetul mbir mi du mbir yëpp xeet yow sañ ngaa xool doomi aadama ne ko boo ma votalul nangam bay tudd ethnie naan ay wolof yi. Hmm. sa mbokk la fi laay waxal. qu'est-ce que ça veut dire. Hmm. yu dangereux yooyu mooy lan loolu attends attends je te montre le truc bokkut ak la ma la ma déglu saa. non non li ma li ma loolu kay mu ngi nii sëñ bi. ah, ah, ah, ah yaa moom. waaw waaw. ñëw na am na benn séquence vidéo ma gis fu mu taxawee ci oto bi non. maa mbokk sama mbokk olof yi wala mbokk commerçant yi mbokk mbokk maçon yeeg menuisier yi ouvrier yi nekk wërësoo yi ñoo xamante ne tey jii dañoo jóg taxaw temb pour voter contre Amadou Ba ñooñu laay waxal. ñoom ñooy opposition bi. amu leen droit voter keneen ku dul Amadou Ba élection bii di ñëw. Ah oui parce que boo voté rek opposition mooy yaa ngi wàññi doole dëkk bi parce que bu bu beneen président gagné dimanche élection bi day jeex lundi. beneen jour la ñu fi nekk fii ci biir Ouro Sogui dëkk bi ci biir Ouro Sogui maa leen xool ngeen may xool dina leer incha allah. yaa fi dee donc yaa fi fi dee oo de message yaa fi dee sa message. su voulez l'envoyer envoyé leen ko ngeen partagé ko Ouro Sogui naa ba yëpp ñu nekk fii ci biir Ouro Sogui sama wax tey mooy sama wax demain képp kuy voté dimanche da a voté pour intérêt la ville de Ouro moo tax sëñ bi. Hmm. réew réew. Hmm. Euh, jàng école rek defaru ko. Hmm. non non non non non non non si si moi j'ai honte dama rus sax c'est un avocat qui parle c'est un avocat qui incite au crime c'est extraordinaire c'est un juriste qui incite occulte du mal qu'est-ce qu'est-ce que ça sous-entend lii mooy bu ngeen ko deful di ngeen xam ne man ak yéen la ci dëkk bi heureusement doo yàlla hmm. yàlla nañu yàlla may fekkee tal sëñ bi doomi aadama du tëkk doomu aadama képp ku tëkk doomi aadama yàlla dal na sa kaw menace au nom de quoi waaye ko ko teb mais mais mais mais yow mais yow mais lii baa ko waxee ay nit. ñu dem voté contre di xaar looy def ba xam. ah leen di dóor da leen di saaga c'est même pas intelligent waaye léegi ñoom bu ñu voté contre nga perte élection yi ba pare nooy def da ngay xeex ak ñoom après ñu jàppale tëj la ci kaso bi maar réewum si mu jeex nga nekk criminel dafa am yoo xam ni sa waay am doole am xaalis yëg sa bopp nii jaru ko de. Hmm. xam nga pat tu sais nos acteurs politiques émotion la ñuy maanaam dañ maanaam tu sais tu sais Pape Ousmane yàlla ñu yàlla may kàttan ak sutura. ba ba ba saxal ci doylu ak ak bañ a beew. Hmm. baaxul. léeg dara dal mu mel ni def la jomm Pape Ousmane tu peux te réveiller être un multimilliardaire. wala Baye Assane xaaral ma jëmal ak sama bopp comme ça wuy <laughs> ma. gisoon ni ma ko nee wooy ni ma ko accueillir ni ko nee ma wuy nee wooy ma ne ko wooy ah, xulil ñaari paa alors ma yow da nii nga ko def mun na demaat mun na demaat moo tax ma ne ko <laughs> wooy yes yes <laughs> accueillir ko ba ko defee mu toog dootul dem saay yàlla nañu doon ay milliardaire ñi ñuy setaan yàlla nañu nekk ay milliardaire sénégalais yëpp yàlla nañu nekk ay milliardaire alal jaa nga fi sëñ bi waaw ah, dëgg dëgg Pape Ousmane c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand un instruit parce que finalement je me dis que il suffit pas d'être instruit pour être intellectuel pour moi c'est pas un intellectuel qui parle ah, ah. parce que Sénégal romb na niveau bi Sénégal romb na fi lii lii lii ay Nord Kivu la ne ak ay ay ay ay ay jamono <coughs> jamonoy njamenaa gu jëkk ga ba gukk ni mm. wedey di di di joteeg isan ab rek ña ca des loolu lu yàgg la loolu mm. amatul mm. aujourd'hui un esprit intellectuel de surcroît doit diir dire Ourossogui jot nañu fi def lii ak lii ak lii fi ñu jëm ak yéen mooy dàq fi ñu jóge parce que nangam ak nangam ak nangam. nga argumenté lenn dinaa leen ko wax. moi qui ai à travailler avec Amadou Ba je vous di que nit bu baax la. yéen a ngi dégg sax fan yi ñu ngi ko attaqué mais nit bu baax la liñ kaa waxal yëpp dara amu ci nangam ak nangam c'est acceptable au moins sax ci permets aux gens de niveler de booy est-ce que. Ah. mais lii nii nii. Hmm. gars yi dañ naan waaw kay sax léegi sax moo tax premier tour opposition bi nañ ci bàyyi xel de. mën naa ah. ne de. Ah. en passant. ñuy wax naan loolu opposition bi rek. nekkatul non y a que l'opposition et bon quand on dit l'opposition li feeñ ci li ëpp actuellement ci li riir ci li feeñ laa wax mm. jusqu'au jour J incha allah c'est ce vent de changement que tout le monde veut moi je le souhaite depuis longtemps mais euh, mais mais attention ci vent boobu noonu nga wax noonu ak riir bi waaw gis nga dégg naa Bachir na muy euh, interpréter fichier électoral bi waa di wax moins de le taux de pourcentage de 18 à 20 ans 1 pour cent 8 pour cent dama ci tombé ci benn séquence ni muy wax di wax ni baromètre boobu nañ ko bàyyi xel parce que mooy réalité bi souvent ndiiraan bi ci ñee ci jeunes yi il ci fichier oui peut-être 5 ou 6 pour cent représentant la diaspora euh, ce taux de pourcentage pour la jeunesse parce que simplement nguur bi moo def loolu en 2019 moo ko defaat c'est-à-dire retarder l'échéancier pour jot sa carte d'identité wala carte d'identité bi boo ko jotee tamit xamoo ni defal non votant yow xamoo ni defal nañ la ko ou pas mën nga jot sa carte non jot naa sama carte électeur dem fekk ñu ngi la ko bindal ci ginnaaw ne mënoo voté ak yeneen ak yeneen ak yeneen diiru bindu ak diiru bindu beeg effet yooyu anam gi ci bindu benn trois mois bu mujj bi qu'est-ce qu'on a fait un mois taxañ gars yi foo mënoon amee un million de votants et quelques nga am fa que ce régime-là a fait sa sabotage quoi nañ ma baal terme bi may ma ko quoi. Hmm. foutage de gueule foutage wala boog foutage trois points de suspension loolu la nguur bi def mais en passant certes yaa li li nga ma wax ne moom la Bachir wax. waay man ka man nuyu en passant. gis naa message am fan yële démb mbërkat démb mais damay wax benn affaire bu am solo c'est vrai c'est à prendre en compte mais loolu ñi ko war a jël en compte. Hmm. c'est plus les acteurs politiques surtout l'opposition. Ah. Euh, le PASTEF. PUR euh, Idrissa Seck Boubacar kamara hmm. taxawu ak keneen ak keneen ak keneen. Hmm. les hmm. dix neuf candidats. mais au delà les populations aussi war nañu ko jël en compte mais aussi bu leen fàtte benn affaire. mooy jamono mi jamono bi vent de changement bi du xale yi rek ah. ah ba ci mag ñi. ah oui sëñ bi attention de su ne nii mag yi dañoo jóg sax parce que dañoo sonn. yépp a jóg pour élection bi pour affaire yi changer ça quoi ça veut que tey jii nii opposition bi su ñàkk élection bi xam lu ko kaa ñàkkloo hmm. communication bu baaxul aa waa faqastalu faqastalu te wax ni tournant bi tournant bu am ci wàllu communication lépp jaare baax mën na fee jaare yàqu kaddu gu gu ñàkk fayda mën na yàq bari ah. kaddu goo xeeb li noo wax nag hmm. kilifa ku ci nekk de tout bord camp bu ne xam nga sa bopp. Ah. nañu def attention ci kàddu yi attaques yi baaxul. baaxul de. stratégie ci laa doon laaj sànq. am na am na am na kilifa bu mag bu ma ci doon waxtaanal benn kilifa bu nekk euh, bu jege Pastef lool so mag ko kilifa bu baax maa ngi kaa tonton maa ngi laa nuyu bu baax mbeng nu laa nuyu bu baax moom ak ñoom kilifa yi ñoom Touré ñoom bëri nañu macha allah ah ñoom Seck tonton euh, sama kilifa yooyu yëpp. Ah. Mm. ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar mais damay wax en passant. Mm. par exemple euh, euh, y en a qui écoute les attaques de Ousmane contre euh, Amadou Ba se justifient au vu de comment ils l'ont connu et tout et que xam nañ ko te c'est a parlé de danger mm. national hmm. ba ñu waxee danger national nag c'est c'est il faut il faut ñëpp bàyyi ci xel déglu et cetera maintenant c'est deux personnes qui se connaissent Amadou connaît Ousmane Ousmane connaît Amadou. Mm. Amadou connaît Diomaye Diomaye connaît Amadou. du connaît les acteurs politiques du pays. ñi xam nañ ko moom xam na xamante nañu seen biir. ces attaques là sont tellement frontales. Mm. que je me suis dit bah à monsieur Ba peut-être da sa défendre. Mm. de défendre comment euh, de répliquer dans le sens de ce pourquoi il wala ce sur quoi ils l'ont interpellé. xam mm. nga ah, la jiiñee moom moom léegi la jiiñ ka la jiiñ daf kaa prouver. Mm. yow mi ñu jiiñ nit nga nga xool nooy nooy justifié woo nooy weddee nooy nooy bañee nooy waxee ni ko du yow. la réplique de monsieur Ba on l'attend dans ce sens après. politiquement moom kay répliqué na mooy ci attaque yi nga xamante ne am euh, Ousmane Sonko def na ko ci bi ñuy nekk impôt et domaine. mu naan xam naa bu bi muy wax naan bu daan jël sax dama naan teg ko feeg yu mel noonu <laughs> yooyu ngay wax parce que am na yeneen aussi. amul man man man man man je que. amul ba tontu na ci même ba ci déclaration de patrimoine également tontu na ci. waaw je je je veux dire si stratégiquement. Hmm. malheureusement nag jamono bi toll nañ jamono boo xam ni leader boo tudd def observation ci moom critique objective positive u négative gars yi interprété ko waaye nag ñun sunu borom la noo wax la man bu ma doon conseiller Ousmane Sonko ko mu neex na nga ne ma heureusement doo conseiller am wala nga ne ma saay fa mu Ousmane toll tolloo fa wala waa ilaa noo ko xalaatee waaye yàlla dëgg la bëgg te mm. bis bu bu yàlla defee euh, beneen nguur toog ci kàttanu yàlla daara du soppeekut yi sunu doxalin lu dul wax dëgg te yàlla tax parce que ñun nag mënoo wut lu neex nit. Hmm. jamono bi ñuy toll Sénégal mu metti dëgg am na ñu fi nekkoon di wax am na ñu am na ñoo xam ne tey la ñuy wax bi lépp sottee. Hmm. am na ñoo xam ne dañoo bàyyi ba mu sotti ñuy wax ak leneen ak leneen. ñuy wax ni sax way bari na jamono waaw am na ñoo xam ne fi mu ne nii parce que ba muy metti ñu ci bëri dañoo làqatu woon. man bu ma toogee dégg ñu naan ma diw rejoindre na coalition jamaay diw damay reetaan ba pare damay ruus. ndax la ndax xam diw moom la mu daan wax ca ñoom. ah damay am kersa mu naan ay waay ci àdduna ma def nii rek mun a xoolal te ba muy metti xale yi di ñàkk seen bakken ak leneen ak leneen ñi doon wax. ñoom ñooñu tey di rejoindre coalition Diomaye ñoom ñooñu ñoom ñooñu suñu classe gi doon wax dañu doon yekk lu mel ni xeme hmm. moo tax tey sur la base du principe lu nekk rek ca moment ba la. Hmm. li ma li ma li ma j'ai mis cette montre la pour faire plaisir à un un un, un ami que j'ai découvert. la ñu fekk jeudi bi passé. exactement okay. il s'appelle Seydi. Mm. et il m'a posé la question mais Paasan da nga dindi sa bracelet bi il est du Pastef da nga dindi sa bracelet bi ma ne ko oui mais lu tax dindi ko. et, et j'avais envie de rigoler mais i fallait leeral ko mu <laughs> tranquille ma ne ko mii parce que principe la woon bi ma kaa takk est-ce que dafa am koo xam ne dafa bokk Pastef ne ma takkal ne ma sëñ bi xale bu jigéen ba ma ko may mu ngi ma ko mayee Ouest Foire bracelet bi ah. ma ne li ñu ma ne ma ne courage ma ne ko courage à vous li leen teg dama koy takk sax comme ne de kenn ko takk dañu kaa takk nag xale yi ñoo tooñ ci mbedd mi jàpp nit faagaagal ko tooñ ñu gis ñu ñu ne ñu ne waa ji yow li ngaa def ni tegoo ko fenn parce que dafa takk bracelet Pastef. sa mbokk journaliste yi ne la tegoo ko fenn. journaliste yi attaqué ma ne ma tegoo ko fenn. ci ñoom laa bokk. waaw ah. waaw. man toog taaj nañ ma sax réunion. ah wat koo koy wax. ay professionnel toog ne ma vraiment. ma ma ma wax leen. ni ma ba kii ma fu ne naa waaw ma ne leen du ma ko dindi. waaw ah. principe la. et puis ña et puis et puis ok yéen soi-disant takku leen ko ñeneen takkuñu ko waaye ñoom la ñuy def ca par parloo moo raw sax ka takk man par parloo ma damay constater c'est différent la propagande c'est quoi oui moom la new ma ci loolu xam nga ci la la man ne kii li ko def du dëgg du yoon point nanu ko waxee woon benn ñaar ñett nanu ko waxee woon ca Karim ak Khalifa du ma wax mu bii occulté ya ca des. Ah. dégg naa la wax bi. dégg naa ak yeneen. j'ai mal quand je regarde Azoura Fall Fall Fleur quand je ce celui qui m'a le plus attristé. Hmm. au-delà de tout je vois des jeunes génn fekk seen wayjur dem parce que seen wayjur yi affaire choc bi dañ jàpp seen doom kaso mënuñu ko supporter ak yeneen ak yeneen. j'ai mal pour ces gens mais quand j'ai regardé Fadilou Keita def émission ak moom à la 2STV am na benn moment j'étais ému quand il a parlé de ses yeux. que mel avant daaw musul takk lunette le médecin lui a posé en regardant ses yeux da nga mës a takk lunette mun ne ko non mu ne ko ah bon il l'a expliqué parce que pièce yi leen dugal ci ci ci rëbës cest à le problème de l'ombre de la lumière pendant une longue période dem ba yàq bët yi muy sol lunette j'ai eu très mal pour lui et par rapport à tout cela je dis à la sax nga ànd ak ñoom dagan na ci dëgg nga wax dëgg te yàlla tax ne ñii li ñu leen def du dëgg yoon ndax politique principe boobu lañu ko takkee ne injustice la mu takk ko bracelet bu amoon ca deux mille 2017 2018 la ñu defoon Khalifa Abacar Sall ma takkoon ka su amoon ca Karim moment ba ñu seetee seet gisuñu ko ma takkoon ko dégg naa wax bi. Hmm. kana xamul nag u neex loo neexu wax mais tey jii nii sëñ bi. suñu xoolee situation bi ni moo demee. pour revenir ci man wax ni bu doon yaay conseiller Ousmane. man bu ma doon conseiller Ousmane. di door libre ñëw ak Diomaye. Hmm. ak riir bi leen topp waxuma Sénégal de quand je pense à Mamilou qui est à Abidjan une maman à Abidjan qui me dit fiston elle était tellement contente bi Ousmane Sonko génnee mu ne ma enfin à la limite c'est l'Afrique qui est libérée tu vois un peu. doole boobu du ma ko am di attaqué Amadou Ba. Ah, daf koy wàññi. non du am vingt wala mu ne équipe sept zéro wala huit zéro wala neuf zéro arbitre bi di waaje tas match bi ñu toll ci arrêt de jeu may xuloog sama adversaire foofu la maa waxee. Hmm. ka mu neex nag u déggee ko na la neex. parce que tamit nag dañuy wax dëgg te yàlla tax nun nun Ousmane et et et ça c'est à l'état d'esprit de Ousmane. Mm. qui va dire aux uns et aux autres que telle chose baax na telle chose baaxul. nitu dëgg la moo tax nit ci nitu dëgg ga dañ ko see fekk si. waaw ah. dégg naa wax bi. dañ see newoon mu ne sa nu daje. amaana nag moom bu toogoon ne la li tax ma def ko. oui jox la ay raison mais da nga jàpp ci contexte fi ñu nekk. stratégiquement parce que en le faisant qu'est-ce qui s'est passé. il l'a remis en selle. ah Amadou Ba. c'est mon avis ah humblement na ma ñëpp baal nag mais c'est mon avis j'ai pas à me justifier d'ailleurs mais c'est mon avis humble qui est que je trouve que stratégiquement c'était pas opportun ils viennent d'être élargis moom ak Diomaye ils font la une de l'info en parlant de l'autre tu fais la une de l'autre mm. je me rappelle euh, <laughs> j'ai un souvenir en tête hmm. j'ai un souvenir en tête euh, Bercy bi moment bi Youssou amee problème ak euh, Karim Wade. Hmm. à la conférence de presse. moi j'avais dit il faut tout faire pour ne pas parler de monsieur Wade parce que monsieur Wade moment boobu 2004 la ko Sénégalais yi di door a découvrir et il a fallu que ce cette histoire là euh, am pour que tour bi jóg. Ah. Karim est venu au Sénégal daanaka en 2004 donc 2004 boobu ci la Thierno Talla. bii yoroon populaire ak l'observateur bi mu nekkee journal actuel mu def un entretien euh, pour présenter Karim Wade presque deux pages ci journal bi nit ñi di lire di découvrir Karim ah doomu Ablaye Wade bi président Macky Sall di door a falu Karim di ñëw à Bercy Youssou toj Bercy ca conférence de presse ba une collègue une consoeur très connue d'ailleurs actuellement laajte quoi diggante Youssou ak Karim genre en question subsidiaire alors que alors que maanaam fi conférence de bi di jeexee fa la question bu duggee question boobu réponse ba en l'ignorant stratégiquement hmm. on reste sur Bercy mais ba tontu ba jibee suul Bercy <laughs> la une des journaux le lendemain c'était ce n'était plus Bercy c'était Karim il est en selle aujourd'hui la dualité est affichée alors qu'il n'y avait pas de dualité. ah amul je trouve Amadou Ba mu ngi def liggéeyam mu ngi ci dans son coin il est en train de faire son maillage kaka xeeb xeeb sa musiba. Mm. il est il fait son son et il, est dans le système il est dans l'administration il est dans l'organisation. il est il est dans son cadran il est dans son cadran moom la muy def mu ngi kaa def te du si boole wax quand bien même qu'aujourd'hui boo jëloon cent sénégal les quatre vingt dix neuf ne veulent pas de sa candidature par rapport au Benno Bokk Yaakaar dégg naa la wax bi. mais sóor leen ko de. Hmm. Sénégal nag wax fii ak dégg fi daf fi jafe. nañ ñu baal Ousmane heureusement moom yàlla da ko defal aura boo xam ni fi mu nekk nii bu juumee sax. <laughs> macha allah gars yi ne gongo donc dara du xew yàlla na ko yàlla suturaal. mu continuer sur son élan. il y a un espoir fringant bu mu bu mu attisé à l'endroit de la jeunesse yàlla bu yaakaar bi tas. après nag li ma la wax sànq. Hmm. communication. oui moo tax sànq. nga bëgg a taxaw ci loolu ci tournant bi ñu nekk nii. attention ci li ñuy kàddu yi ñuy génnee ci li ñoo wax dafa am ñoo xam ni dañu toog yor seen ay carte de vote di déglu il y la la la jeunesse qui qui qui est physique qui bouge hmm. ak nit ñi. mag yi gis nga leen ñu ngi témoigner ay mag yu bëgg Ousmane di di wane seen bopp et tout maintenant il y la réalité du jour ji et la réalité du jour J c'est le match tey jii nii hmm. xam nga Pape Ousmane yaa sama page Facebook dindi naa profil bi xam nga. waay dindi naa <laughs> Ousmane Sonko bi ci newoon. Ah, principe. xam nga pour lan pour wax ne bi maa defaan usman Sonko du ma partisan Pastef. boo dajeek waa Pastef dañu naan patriote bi. Hmm. ndeysaan nga gis ku ku la romb rek comme comme Seydi rek ñëw may la benn montre. rafet na Sénégal teraanga la ñu xam. Hmm. ni nga kaa defalee ay nit la la kaa defalee. loolu la ñu xam waa léegi loolu du tere dëgg rek fa juum juum am nu wax ko fa dëgg bi neen wax ko. te du moom rek mooy wax de Ousmane Sonko jamono ci attaque yi même ba ci Bassirou Diomaye. erreur la sama gis-gis ba gàtt erreur de communication pour man. gis nag Sénégal. Hmm. boo bu ñu bëggee nit. ko wax dëgg. duñu wax dëgg te loolu baaxul Sénégal bu ñu bëggee mu changé principe bi Ousmane développé ci dëgg ba nit ñi bëgg ko. Hmm. ci loolu lañu war a dox. bu juumee nu naka juum nga bu réussir ñu tàccu mais nag contexte bi comme yaakaar bi dafa fort kenn du déglu. c'est-à-dire mënoon naa bañ a wax ci loolu. noo naa bañ a attaqué non dafa déggoo ma ne la. maa mën a équipe très attendu aussi. maa mën a équipe parce que y a eu autant de questions. ci génnam ak ci yooyu ñëw na bëgg lan la da nga bëgg a bëgg a leeral tamit da cee bokk parce que bu mu ñëwee dafa ni président Macky Sall wàllam wéy na. Mhm. le fait que mu isolé ko tekk ñële te xamoon nañu ni <laughs> lu mu daan wax lu ci ëpp ci li ko daan dal ak njabootam moom day dem directement ne président Macky Sall noo comprendre changement boobu noonu ci épargne su ma ko mënee waxee noonu le mot. moi je trouve que. Euh, xam nga nag sëñ bi. Hmm. dafa am benn affaire bu am ñaari nit mën nañu jote mais de am bis boo xam ne dañuy toog seq jàmm. Ah. c'est l'image que j'ai maanaam tension amoon na seen diggante maintenant tension bi jeex na et c'est mais sëñ bi loolu la ñu yàgg wax. Pape Ousmane ñaata yoon laa la toog fii wax la ne la il faut que président Macky Sall Sall ak Ousmane Sonko waxtaan mais combien de fois. wax naa la fii keroog jeudi. ne nit bu normalul moo la naan man du ma dialogué man xaw ma sax loolu fu mu génnee man. laa comprendre ak lu tax mais sénégalais yi mel ni ñun nekkatuñu ay sénégalais. mel ni ñun duñu réfléchir yow ban nit nga moo mën a waxal ne ci àdduna man noo man du ma waxtaan looy def dangay ngay xeex dëkkeel xeex xëyal di xeex. bu ngoonee di nga kon keroog bi nga ko dégloo bi muy ñëw ci pàcc yooyu noonu di expliquer même ba ci euh, desam ca kaso baag. loi d'amnistie bi lan la war a defak ak ak ñeneen ci ay ñooñu ñu nekk ci kaso bi aussi doon dund métti. non moi moi je je je dis une chose da ngay ne ah, ah enfin mu ngi lay. je dis réconforter oui je dis une chose. Hmm. que en 2016 sonk Sonko ni mu ñëwee ce sont les idées. cette attitude là. Hmm. d'échanger à la limite il l'a accepté il a reconnu que. on est allé vers quelque chose qui a eu à permettre ce qui se passe. mais ce quelque chose là c'est excellent sëñ bi Pape Ousmane. Ouais. c'est excellent de ñu régler problème bi libérer nit ñi bàyyi nit ñi dem seen kër yi libérer ñëpp bi ma gisee keroog libérer nañ xale yi Ziguinchor. Mbour ex je dis mais lii la ñu yàgg a wax. te loolu li kaa indi du weesu waxtaan meen. waaye ñu ne négociation. mais xam nga luy problème bi. à un moment donné il faut que l'argotique là waxtaanu mbedd bi. mu arrêté. danaa gis benn Baye Assane boo xam ne tax day mel ni man taxaw ci bopp koñ bi naan xoolal kenn du fi waxtaan te ba xeex jotee saa yi à un boo nee kenn du waxtaan bu nu jàppee Ousmane Sonko ci saa nga war a génn kenn génnul di. Ah, kenn génnul di voilà ah, bi ñu jàppee Ousmane génnul te dañu waroon génn dès lors que bëgguñu waxtaan. foofu la ñuy waxee à un moment bi ak ngët-ngët bi ak xët-xët bi ak kii du yëfi nit faw nu toog ñu xool fan la ñu bëgg a dem nous sommes des jeunes dañu bëgg suñu réew changer. am na un leader bu ñëw porté espoir boobu. am fu mu waxee am nu mu waxee nu dégg si. mais il faut y aller intelligemment et j'ai super méga terra aimé. Mm. la lucidité de Bassirou Diomaye Faye. Ah. am na démb ku ma message quoi ne ma waaw yaa ne woon il faut que ñu génn Diomaye nga dégg ko. pour nga pour nga mën ko jox sa carte ou pas. <laughs> waaw léegi looy wax. ma ne ko ah sëñ bi lu maa wax lan nga bëgg ma wax ko mu ne ma noo di nga wax ma ne ka lan lan lan nga bëgg ma wax mu ne ma xanaa di nga ko jox sa carte man ne ko déet sama carte maa ko moom ma carte moom benn la. Hmm. wàññiwul dara ma ma. yow benn waaw waaw ba boobu moom. ba ko boobu c'est personnel. noo koy évaluer. non parce que am na évaluer ci ensemble yëpp. non non non c'est-à-dire paa ci jaar jaar bi rek. pas ci expérience bi. pas ci li mu jàng. déjà gën a sori ci. déjà j'ai j'ai j'ai je je loue sa lucidité quand je dis lucidité mooy dal bi quoi. j'ai regardé la personne dal bi ça loolu benn la beneen bi il y a une forte pression sur lui. ah ah bi Ousmane Sonko est le candidat. man boo ma laajoon tey entre Bassirou ak Ousmane man la non c'est Ousmane la candidat. Hmm. mais nguur gi fi nekk jaxase na kart gi xeex kële ba teer ci loolu est-ce que dégg naa la wax bi. ñoom nguur gi boo leen yeewoon tey quatre heures du matin amaana ñu ne la non finalement je pense qu'on va laisser Ousmane bu bokk mais du yàlla ñoom. Eh. du yàlla. amaana Ousmane li mu doon def yëpp nde am boobu yàlla tànn na ni non Ousmane doo nekk candidat Bassirou mooy nekk candidat loolu mbiru yàlla la au la de tout ce qui s'est passé. parce que yàlla mooy mooy samp alors moi j'ai écouté quelqu'un quand Diomaye parle de la date du 3 février ouais. quand le président a parlé j'ai am Amadou Sall ji mais loolu loolu c'est parce que il faut être réfléchi pour xam ne fi ñu jëm baaxul nga ne xaaral ma wut solution c'est intelligent ah uh-huh. c'est intelligent il fallait le faire moo tax dix milliards d'ans waaw lii sama mbokk passé bi di bañ ma wax ko hmm. Khalifa Ababacar Sall ak Barthélemy Diaz ils ont eu raison sur l'histoire et dans l'histoire par rapport à cela parce que mois de juin hmm. bu nu waxtaanoon amaana du ñu agsi fii et mois de juin bu nu waxtaanoon amaana Ousmane nekk candidat wax ak dégg bu ñu demoon ci dialogue bu njëkk bah c'est mon avis humble parce que sëñ bi moi je trouve pas qualitatif xulil Mm. la non participation de Ousmane Sonko à cette élection waa Pastef yi nag li maa wax ni nañu ma baal ah, maa ngi siy jéggalu mm. mais objectivement ni ñuy waxee ci waa APR la ñuy waxee ci ñoom. ak ah, keneen ak keneen. nous on est des journalistes. on n'est pas des partisans euh, on est des patriotes et compatriotes du Sénégal donc faw nu wax suma xalaat nag très librement et objectivement. Mm. dégg naa wax bi. sunu boroom rek dooy nañu moom rek. allahu rek. la rencontre du mois de juin boobu. Hmm. foofu nag laa meree waa yeewee askan wi. mag yi nekkoon yeewee askan wi tey taxaw. tey taxaw ci wetu usmaan ak Jomaay mag yooyu ñoo waroon fexe ba diggante boobu du yàqu. ba coow li jibee ba coow li jibee ca moment boobu diggante boobu waru woon yàqu il fallait juste les appeler déet Ousmane nañ def nii déet xalifa nañ def nii téléphone rek coup téléphone rek kii diw day jël woote kii ñu defar mais Sénégal moo jaxasoo. Ah. dañuy ànd te du dëggu. Hmm. malheureusement après qu'est-ce qui s'est passé mu am benn. waay groupe bu taxaw ne non ñee ñooy traître yi c'est quoi leur tort dañoo dem ci barte dialogue. mi toog ne dama initier dialogue bi. waay c'est honnête. Bassirou Diomaye expliqué Sénégalais yi ne leen dafa jël téléphone am woote. au mois de mars 2021 bi bi ñu génnee ci événement yi ba président Macky ñëw def wax ne li fi amoon dootu fi amati. Hmm. xale yi tontu ko ne li boo defee li nga defoon ñu defaat ko. dégg naa wax bi. Hmm. man mii toog naa antenne ba taay ne président Macky Sall li nga def li loolu nga wax noonu d' accord hmm. yaay la la ngeen defoon tamit yéen nguur gi boo nu ko defaatee xale yi defaat lañ defoon et et et c' de droit sauf que loolu fan la jëmale réew mi fan. moo tax man la j'adore la lucidité de Diomaye Faye Bassirou par rapport à cela te sa waay mbir mi nag foofu la. Hmm. à un moment donné gis nga Sénégal bis bu ñu demee ba toog ne dootuñu waxtaan mais waxtaan bu intéressant la ñu wax waxtaan bu honnête waxtaan bu qui ne pas tu vois d'ordre on ne sait quoi dialogue bi fi amoon bi passé pour report élection yi boobu kenn xamul lan la mais ba amoon au mois de juin nga xam ni à huit mois on peut traiter tous tous les d de l'élection boobu noonu. dem lañ régler tout ce qui est parrainage bi ni mu tëddee baax na baaxul non non non te Pastef am nañu expertise boo xam ne bu ñu toogoon foofu keroog yaa ngi imaginer Ousmane Sonko jàkkaarloo woon ak Macky Sall ci dialogue il est candidat d'office lan la kaa mënal parce que rafet na ba pare kon fi ñu agsi nii du ñu fa agsi on était cent 400 500 ou 600 détenus foofu mënoon nañ ko négocier la ma yàgg a wax ne commissaire police bu téye sa doom da ngaa dem waxtaan ak moom. Hmm. loolay dëgg. léegi ñuy wax protocole Cap Manuel nag. xam nga yaa ngi wax ni oui. sam sam xaw ma ci dara. ak li mu wax waaw waaw je sais une chose. je dis une chose ak ni nga yàggee waxee président Macky Sall ku ko xam-xam ne fin politique la lu muy def rek mu ngi ciy xel intérêt man je dis bu mu posé rek. parce que am na lu ko ci arrangé. je je dis lan lay doon kon. je dis une chose. Hmm. sëñ bi. Hmm. ñi nekkoon dans les geôles ci kaso yi dañu waroon génn. jaru ko fi waruñu leen woon sax jàpp. nguurab APR bi ñoo tooñ ñëpp ñëpp ñëpp tooñ àdduna tooñ Ousmane Sonko ba romb tooñ ba yàq examen doomam ak leneen ak leneen loolu noonu saay mais à un moment donné dafay jeex fi mu nekk nii bu ñu ko néewoon ci logique bu xeex xeex itam léegi la la ngay def nguur bu bees bi su ñëwee par exemple supposons benn jomaay falu qu'est-ce qui va se day ñëw ne day defante bu ko defee ñetti weer sénégalais yi commencé naan kii du dem. Ah. du xel àdduna sa waay àdduna le sens du culte du bien mooy defar àdduna sëñ bi te am na loo xam ni boo koy def sax doo ko wax. ah oui yaa ngi wax ni peut-être xëy na Ousmane Sonko mën na am raison yi tax muy attaqué Amadou Ba. am na daal bu mu ci wax boo xam te ne est-ce que jàpp nga ne xëy na mën na justifier yëpp. li mën a Amadou Ba def na lu ma mën ngir mën ak jomaa ñu des ci kaso bi ngir lu mel nii du am. su fekkee loolu am na lu ñaaw la. je, je, je, ce serait ce serait dommage et, et, et ce serait très mesquin méchant euh, lugubre incivil euh, inhumain su fekkee noonu la demee mais avant on disait que c'était le président Macky Sall tu comprends yàlla dëgg la bëgg avant on moom la moo tax ma ne la moo tax ma ne la stratégiquement sur le plan de la communication non jaru ko woon. mënoon na off yi yëpp ba après. parce que non parce que dès dès lors que dès lors ci ci beneen niveau. Hmm. man jàpp naa ne mais yow gis nga riir bi topp Ousmane Sonko. mais bu génn it waxul. tamit mbaa non non non c'est pas une question de wax. Sonko am na dayoo. non am na dayoo bu ko yàlla defal boo xam ne. Hmm. bu génnee ne man kontaan naa ci xale yi ni ñu leen libéré amul kenn ku mu ci gërëm parce que dañ leen a tooñ. ka leen tooñ moo leen libéré. Mm. quelles que soient conditions yo lu tax mu libéré leen et cetera mais pour man ñoom ñoo xam lu tax ñuy wax ak nun kaa waxee. Mm. Ousmane nag ñi mu àndal. mais jàpp naa ni stratégiquement laa wax c'était pas opportun maintenant amaana lañ ko xamal ci information en terme de wéy lii la dal ni yëpp Amadou bala xëy na mën na def benn frustration ci moom. Ah. répulsive mu daal ne. mu mu yan yan ko yan bi cest à bu fekkee am na ci lu ko leer moom moo xam amaana da ci am lu ko leer luñ ci xamul. Hmm. mais j'avoue que c'était pas opportun parce que parce que nit ki boo tollee fenn fi hmm. ci audience soxloo may audience keneen. ah waaw. ci biir loolu tamit am na débat yu ñu soulevé au plan économique dundoon nañu fii euh, ci wàllu monnaie bi bi ñu ko proposé ak la ca. Amadou Ba wax ñu jóge fa euh, Bassirou Diomaye fay ca Ziguinchor également. waxaat ni euh, maanaam li nga xamante ne mooy capital économique ak culturel mënuñu wax maanaam fii la jekkoon. capital économique ak culturel fii la jekkoon. Casamance. waaw. moi je pense que waaye wax ji am nañu ci am yeneen déggin ku mel ni Amadou Ba. je pense que Casamance Casamance c'est une c'est pour man lu l'une des plus belles régions d'Afrique. euh, grenier la les gens disent grenier Sénégal pour man c'est le grenier de l'Afrique bokk na ci grenier Afrique parce que la Casamance peut nourrir toute l'Afrique ouais. maintenant comment il faut qu'on la Casamance pour man ce qu'il faut faire au-delà de tout hmm. li ci nekk priorité mooy faire de sorte que voie de communication yi jaar yoon nit ñi am fa accès beaucoup plus facilement que maintenant tane na mais mu gën a yomb encore davantage voie de communication yi pilule hmm. bare sorti entrée bare ñu ñu ñu industrialiser Casamance parce que li ñu fa mën a industrialiser bëri na. Mm. Casamance et une zone industrielle à, à qui peut apporter énormément nous concentrer wu ci loolu mais bon euh, après nag chaque et sa et son ambition. Mm. mais je pense que le Sénégal aujourd'hui fi ñu toll la réalité xam la la. Mm. il y des urgences il y a des urgences. Ouais. urgence yi c'est quoi c'est l'existentiel au quotidien. nit ñi bu ñu xëyee lu noo lekk lu noo naan du dund boobu boobu mooy urgence bi après le reste les candidats nag ce sont des spécialistes en politique mm. ils ont d'excellents conseils et stratèges chacun y va de son côté suivant na mu ko gisee mais je dis une chose la Casamance a plus besoin aujourd'hui d'exister économiquement qu'autre chose et même culturellement effectivement hmm. culturellement quoi en terme de sonorité musicale artistique en termes de créativité euh, artistique euh, sur les au niveau des arts plastiques en terme de de créa de tout ce que tu veux de génie d'art Casamance àdduna la. mais pour man loolu je pense que peut-être Diomaye fi ma waxee. c'est parce que moment boobu mu ngi biir Casamance. mu wax leen loolu comme peu mais de là à à faire la capitale. Mm. je trouve que c'est pas encore le le, le débat après nag. je te dis toujours ne la ñoom ñoo xam lu tax nu wax ko ak fu ñu ko teg mais une chose est certaine euh, ça suscite un débat. déclaration de patrimoine bi également ci lay bokk. Diomaye moom nee na du yàgg. dinañ ci jotee xam ne il va le faire il it ci candidat yi def noonu rawatina Amadou Ba. Amadou li mu tontu mooy ko ni euh, d'abord nañu wax moom Diomaye fi mu jaar yëpp lan lañ ko jot dénk. ba muy wax ni yor na. te nit Amadou Ba bis bu jotee ci réew yi moom dana leeral li mu am. coow yu bëri na aussi ci am am yi ñi gaa yi ame waaye am am yi ah Sénégal de des impôts yi Sénégal de <laughs> waaw foofu nag dafa bari xaalis <laughs> waaw ci régie financière yi si ñi nga xam te ñoo ci man de keroog keroog wax nañ ma benn information boo xam ni hmm. loolu mënu ma kaa wax ci kaw ndax aw ma kayit ya aw ma lu kaa wone aw ma dara waaye ba ma ko déggee nee naa man je comprends lu tax Sénégal taxaw je comprends les dépenses les les, les dépenses dispendieuses de l'État du Sénégal sont affreuses état bi xaalis bi bi nguur bi di dundee moo kawe c'est-à-dire imagine-toi on a des autorités yoo xam ne ñoo ba xaalis ministre français yeeg seen président yeeg seen kii loolu dafa xaw a yéeme tamit dafa bizarre quoi te lépp li ko waral mooy notre organisation étatique mm. notre régime de politique présidentialiste qui fait que le président peut enrichir quelque en benn seconde tac il te il met cinq milliards ci sa compte wala ci say compte euh, oui c'est le président loolu amul fen système yi ni moo doxee fii baaxul organisation ba dañ ko war a corriger faire de sorte que état bi li moo dépensé di feeñ seconde par seconde minute par minute pièce par pièce ñu xam lii la mu doon fa mu dugg kaka jël kaka jël nu mu ko defee etc quand c'est transparent les gens sont tranquilles les gens les gens s'enrichissent parce que c'est pas transparent kon war nañoo mën a wax ñoom ñëpp la am ah dañ ko war a wax sauf ko nag ki laa wax la mu am la mu la ca wax rek ngay tee ah. mën na la bañ a wax lépp comme mun na la wax lépp itam noo yaakaar ni noonu lay li mujj nii Hmm. bi bis yu mujj yi laataa ñoo yegg ci échéance bi naka la nar a demee parce que dund nañ début campagne bi. ba ñu jeexalee semaine bi dugg ci bii. Hmm. yow boo koy jàng ci déglu candidat yi ak yi nga ci forog yu mel noonu waaw loo jàpp ne xëy na ci bis yu ñu jëm est-ce am ce débat d'idée là débat programmatique. bi ñu xaar le fait que loolu on l'a pas encore toujours ci voilà on est c'est amaguñ ko mais pour am ko dina difficile. pour am ko di dina difficile xam lu tax pour man c'est une campagne dévoyée et viciée pourquoi na mu waroon amee ci 21 jours amee wu ko parce que président bi mu reporté suñu ay élection affaire bi jaxasoo benn beneen bi ci des moo ne ne bu dee campagne am na koo xam ne moom moom campagne na. ñeneen ñeneen ñëpp a ngi campagne na gaa yi ngi campagne de. Hmm. gaa yi ngi ci àll bi di dugg di gérer. mais ki nga xam ne campagne bi dafa fës dëgg dëgg dëgg dëgg c'est c'est koo xam ne campagne ci benn at ci quatre ans la campagne c'est le Pastef ah. moo tax ma ne la président Macky Sall moo voté pour Ousmane Sonko président Macky moo moo def Bassirou Diomaye fay candida ba pare di ko campagnal dégg naa la wax bi hmm. et loolu les autres ils sont hélas obligés ou contraints de le subir tey jii nii regarde les sites d'information Ouais. regarde les médias tu as l'impression que ñoom ñëpp Pastef rek la ñuy topp. médias yi bëgg audience suñu classe gi nga xam dañoo ay chaîne YouTube yoo xam tekkul dara tojagul tàkkagul déclenchégul ñun li ñuy def mooy jël jomaay rek di dugal parce que fi mu ne nii moom la riir bi topp mais sauf que loolu après ça devient plus de l'info ouais. l'information c'est de mettre tout le monde l'information c'est de publier tout le monde mais no sites web qu'est-ce luy doxal seen chaîne la ñuy wut. dañuy wut te dañoo bëgg ay vues <laughs> te sa waay nag riir bi boo ci bokkul du am vue dégg nga bi ah. c'est comme ça c'est une réalité parce que. moment moo moo quoi. oui moo moo tax nuy wax ni euh, réew aussi am na fu muy toll hmm. yàlla toujours day am ku moo. yëkkati teg ko ci kaw. te fu metti léeg-léeg la kaa jaarale. Mm. wala foo xam ne dangay ngay yaakaar ne dafa metti fekk yàlla daf ko tracé benn yoon. Mm. loolu dafa am aujourd'hui je pense que am na benn euh, benn tolle euh, pas benn benn euh, benn ébullition. Mm. bu topp Ousmane ak son camp. qui fait que ils sont au devant de l'information et de la et de la et la scène en général. mais attention ça ne suffit pas. Uh ah -huh. Ah. ça ne suffit pas nous sommes 7 millions d'inscrits. aujourd'hui le boulot du du et je pense qu'ils le savent ce n'est pas aujourd'hui de prêcher à des convaincus la jeunesse est convaincue il y a d'autres à convaincre et ces autres-là à convaincre il faudra les convaincre via le contenu le contenu dégg naa Ousmane Sonko keroog mu ne Diomaye yow gérer programme bi. nga bàyyi maag politique alors que man je trouve que euh, programme boobu am na solo. moo tax Diomaye dafa war di wax lu bare di pour exposition son programme et la meilleure façon de le faire euh, au la de tout mm. c'est peut-être de mu daw campagne bi ñaari fan ñetti fan ñëw ci plateau télé yi dana dana dugg nag ci langue ji annoncé nañ ko dana ci soppi dara mm. président Macky Sall ci wetu Amadou Ba bu duggee ci langue waaw campagne parce que annoncé nañ ko Kaffrine ak yeneen gox yu mel noonu tey ñu ngi koy annoncé tamit ci yeneen bërëb baa baa du gën a solo <laughs> am am demal boppam moo gën a wër de fii nii ay doxay Seydina Mouhamed ah jàpp jàpp combat par procuration kay bu kii téye téye téye candidat am kii kii war a téye candidat am ah wala am ngeen. annoncé na ko de. fu muy dem Kaffrine. Kaffrine de annoncé dana mokk parce que Ablaye Seydou Sow moo fa ne. Hmm. foofu c'est normal. te na fa dajeeg Amadou Ba. foofu c'est normal. Euh, allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim la ilaha illallah yii li important na Sénégal du def kii na Sénégal du indiwaat confiance du rek du du du du dékki la sëñ bi maa la wax ak aw ah. xaw ma luy xew Amadou Ba buñ nee gañe na élection yii hmm. du APR mooy tax mu gañe xaw ma nag ka kaa lijjanti ak fu mu kaa lijjantee xaw ma fan la kaa jaare ah. su dee laa wax day am bu bu affaire moom pëtax gi fa la gën a gaawee mardi am si dama lay wax rek ban de bu ma doon moom dinaa leen leen billaay après tout ce qui s'est passé nii bàyyi leen rek ma. guerre de sondage bi nag ak li nga wax sànq ne tout peut se jouer ci premier tour bi am ñu ko dàq hypothèse boobu noonu. non dégg naa ci spécialiste bi jàpp ne si nii moom si man pour man plus ci pour man l'opposition du Sénégal nañuy ànd j'ai vu des images. Hmm. très plaisantes. ah, xalifa vu ak Amadou Ba hmm. ak Kolarente ouais. j'ai vu j'ai ak capitaine Touré ak Dianté on a besoin de ça et je suis convaincu que benn Khalifa wala benn Amadou Ba wala keneen bu dayoo woon ak Diomaye wala Sonko noonu lay demee ah dañuy nuyoonte saafonte déewante sax saa yi temps yi nag affaire yi saf na de waaye yow xaaral ba ba pare am na buy ñëw sa kaw c'est entre nous man nu ni neen la sëñ bi billaahi wallaahi tallaahi képp ku nekk ci wetu Ousmane Sonko di ko gëmloo ne ko il va falloir faire ça et ça et ça faire mal dans un sens ou l'autre nala leer ni bu Pastef faloo yàq mandat mar day si il faut aller vers la construction il faut aller vers vers le le comment on appelle le consensus la fédération c'est-à-dire fédérer les cœurs Sénégal ñoo far cest dire dajale nit yi même waa APR mais aujourd'hui tous les gens qui rallient coalition Diomaye mm. déggoo ma ne la am na si ñu bëri ñoo xam lañ daan wax ca Jomaay wax même pas Jomaay lañ daan wax ca Sonko. waaw ñooñu nu ñuy taxawee ak moom. am na benn conseil président Macky Sall. waaw waaw Babacar waa Ndiaye. waaw fekk dina Jomaay. waaw léegi ñooñu. ñooñu ñooñu waaw te pourtant ñoom position bañ taxee woon c'était quoi waaw léegi nag ni ñu mën a nangoo loolu. accepter loolu na ñu dem ci sens boobu nga xam ni dañuy fédérer boole xol yi apaiser dëkk bi calmer les ardeurs moo tax. jokkalante bi ci lu ñagas. Hmm. pour man mën naa ñàkk. du tere nag saa yi sénégalais yi xam nañu kan moo la kan. ah, ah yu dëw ni yee fii ña def ak ña deful xam nañ leen moo. <laughs> xam nañ lépp. xam <laughs> yaa ngi yaa ngi wolofal de <laughs> yaa ngi wolofal de. am na ab faale loolu moo la liyaar loolu moo yaa ngi liyaar de loola moo la loola. loolu moo la lool non du loolu moo la loola de. Ah. loolu moo la loogu. <laughs> ah loogu loogu. nañ ko bàyyee xel maam Fatou Fall. depuis jàmmalaay mu ngi lay bëggee sa soppeeku. waaye nul ma ko nul ma ko ak naa ah, ak naa si Cissé. ah vraiment naa naa naa la naa la jox yóbbante. boobu ma leen te yóbbante àq lañ. ndeysaan nee nañ daal dañ lay bëgg bu baax. maa ngi leen di ziar bu ak ñaar ñoo xam ne xëy du ñàkk. sama xel fàttu na maa ngi leen di ziar mais dina dina di ziar ñi ñuy setaan ak ñi ñuy déglu ñëpp ñu leen di nuyu. li ñu fi wax nag. Mm. lépp sunu di la. li si baax yëpp mm. sunu boroom la Euh, lu fi manqué rek ñu na. waaw hmm. ah, ba pare ba pare ñun xamuñu li xew dañuy am chance toog fii di wax nii rek ci sunu limite. ah da xam lu xew de. Eh. parce que yow xam nga li xew de <laughs> yow xam nga loolu mënoo ko wax fii muy jàll. loolu moom doo ko wax fii muy jàll. wallaahi xamul ah, ah, yow waxoon fi léegi ne nañu ànd ci dëgg. autorisé ma ma wax ko. <laughs> <laughs> nee ma waxal liñ. ah a wax. lan ngaa Ah, loo bëgg a wax ak ah, ngaa xam. nee ma rek waxal. waxal lépp lu ma mës a wax rek wax. <laughs> ah yi ngay wax sànq naan aw ma yooyu. leen daal xam na ma ka. trente cinq ressources. trente cinq matières premières. Eh. am na biir Sénégal Samba Tall Sarr moo ma ko xamal. bërki démb. ba ba may eh, mais dama la de yow yow yow yow. SNF léegi Pass TV la tudd <laughs> keroog am na ko ma ne waa Pass ñaata chaîne nga am <laughs> xoolal ma ne ko ma ne ko wuyu man xam na nu maa dundee la chinois yi waxoon ak ak japonais yi Badara ñaar di ma ko wax sama xarit bi Alioune Badara. waaw <laughs> xoolal échoue dix fois. relève-toi waaw waaw. moom Pass TV day dox by force incha allah. incha allah ba pare dama am beneen projet pour Sans Limites. mais ah. pour le moment <laughs> Pass TV. waa Sans Limites Sans Limites ñaata abonné la am fi mu ne nii. 1 million waaw million yi mat na. waaw il faut aller 1 million 500. incha allah waaw incha beneen la l'autre bi ñuy boobu nga la. yaa ko <laughs> boobu réew mi téye am na solo boobu noonu am na solo de. léegi nii. Ah. am na beneen tamit bu ñuy lancer Walf. Ah. incha allah ay tam. wal fajiri ngi ñëw ak doole. Hmm. am na beneen léegi. Hmm. <laughs> Pass TV. <laughs> am na. matériel bi renforcé nañ ko. ah ah yàlla. ñaan leen nañu dolli ñaan ñu ñaanal yàlla. yàlla na ñëw. Hmm. na ñëw ci yéen ñëw ci ñun. na ñëpp am képp koo xam ne ah ñu noo setaan. yàlla na yàlla bettee xaalis bu baree baree bari te lépp jik la mu fekk la nga wér talka ak sa njaboot te lépp barkeel barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla defar réew mi yàlla na yàlla defar réew mi yàlla na yàlla defar réew mi candidat yi fi nekk hmm. xam nga bu ñu toogee fii di wax en tant que journaliste léeg-léeg nit ñi am mu am fu ñu waxee ñu ne ñu dañuy parparloo ñu waxee feneen ñu ne ñu parce que boo waxee fii ñu ne da ngay parparloo hmm. boo waxee fii ñu ne da nga naafeq hmm. léegi da ngay wax dëgg te yàlla tax dëgg bi bu lijjanti ku mu neex ak ku mu neexul moo tax ñun moo ñun suñu classe gi ñun no frege ñente moo tax ñu naan ka mu neex ak ka mu neexul hmm. ka bëgg ka bañ ka nangu ka nanguwul ka mu saf ka mu soof fa mu cuqee fa mu cuqeewul dégg naa la wax bi <laughs> parce que yàllaa fi ne sëñ bi fi nii imagine nga toog di wax di wut lu neex nit yàlla ji yàlla yàlla ji war laa mere nga boo waye di woon dix waye di mille àndal ak borom bi mu yéex mu gaaw dëgg moo day mujj. dëgg. te dëgg mooy feeñ saa su ne. yàlla na yàlla defar réew mi ki gën ci bopp réew mi yàlla na fa. yàlla sa xarit bi nag. kan bettu la de. kan Poutine. Occident yi 87 pour cent. waaw Occident yi ay 3 4 pour cent. <laughs> xoolal ay LCI yi. France 24 ñu si des xoolal discours ba. ma tam. xam nga <coughs> c'est un vrai nationaliste. non mais nag loolu c'est le sang. si xanaa xamoo bañ. bañ ci deret la. Hmm. lànk si le sang si le sang. na ko bàyyee xel. yow abonné nga Pass TV. yaa ma ko wax léegi. waaw abonné leen waaye Pass TV PA2S. waaw TV. Passan moom mooy sans limite moom lu mu bëgg def leen <laughs> ndax ñun ñii <laughs> liñ bëgg ci moom dana ko def ci kattan yàlla an baaxam loolu moom. Yankoba. maa <laughs> tu vas bien. mu ngi jàpp. bu ça va. Euh, Taïb. tout va bien. Eh, eh bul yem foofu nabu yow ak mami tey la woon kan. nabu ak mami tey moo nekkoon seen. ah ñëw ñëw nañu ah, waaye <laughs> di di ci lu gis à limite. matinal benn am na ñu la woo sax yow ne la waa paasal looy xaar. <laughs> benn rek ci ma autorisé ma wax ko benn. <laughs> matinal ab lan. ah may matinal. Pass TV benn xanaa lenn. Ah, lenn ñëpp seede ñu. waaw mooy waxal fii ñëpp di dégg. virement bi. Hmm. ngeen multiplier ko par trois. déglu rek wax ak dégg. <laughs> mooy. bu ngeen ko multiplier par trois. <laughs> Eh, lii de neex na ma def <laughs> ma def ñaari matinal incha allah. Ah. xam nga matinal ak nabu ko eh, sàmm day neex. wuy ma Pass ma dénkaan bu ngeen ko mënoon nag bala ma Pass TV ma matinal foofu bu leen neexee nag. ngeen matinal ba ci digg bi. Eh. ma ma ma ma ne gars yi nañ nañ dugg nañ dugg sans limite. ñu dugg sans limite. ñu nekk Pass TV. di wax ak yéen. waaw loolu day neex. Ah. vice versa. mbir hmm. la. léegi naa waaye ñaar yëpp baax na. <laughs> <laughs> da xam fu ma jëm ak moom a xam. <laughs> da ngeen mit le virement là du du du. du du du vingt neuf xaw ma du trente. da ngeen kaa def kii. waaw. par trois ba pare barewul sax. loolu du ah, leen wàññi dara yàlla na yokk yàlla na kër gi yokk. Ah, un ah. million cinq boobu moom dama lay wax un million cinq cent <laughs> yi ñetti weer <laughs> cinq. bu boobaa paas paas def cent cinquante mille. abonnés wala plus en attendant. foofu moom foofu dara la de waaw waaw step by step la tepp méttiwul. yàlla baax na yooyu yëpp nañ ko xoolee en tout cas merci beaucoup Pa Assane. ça a été waaw àndaat yow ci jotaay bi. ba pare weeru émission weeru koor daa neex. yow weeru koor mu ñu ko defal yokkaat beneen 30 jours. pour pourquoi pas def 60 jours. Eh, eh, gis nga penda commentaire yi lu ñuy wax xam naa ñu ngi móolu sama 60 jours weeru koor. gis nga penda ni mu doxee saag bu. mais penda yow koor gi koor gi da ko da ko sonal la. Ah. même bu ndogoo nii ba lekk nii du bien. yi mu sol ni mu sàndee. waaw waaw ndeysaan jaar fu mais est que ndogu na. ah bàyyi ça ah, waaw a ah. ba pare yéen seen kër gi dafa neex fii. Ah, seen kër gi fii ça va de macha allah na yokk. amiin yaa rabbi na yokk yàlla yokk ba. xam nga lépp ba ba saa ba saa limite lépp mooma rek. xam nga waaw yàlla na yokk yàlla na yokk na yokk kër gi yàlla na yokk. yan ko ba euh, ba ba saa limite nekk fu ne ci àdduna bi. amiin ak feneen ak feneen. et puis et puis et puis wax baax. ah kon ñu sant yàlla. gërëm la bu baax. noo ko bokk gërëm ma noo ko bokk ma rakab bopp. waaw ma <laughs> ma magab bopp. <laughs> waaw merci après na mi nekkoon ci réalisation bi on se retrouve incha allah jeudi digi penc 22h bu leen ko fàtte Pa Assane également day ñëwaale ak équipe bi ñu jaar fa ñu daan jaar ak actualité bi jërë ngeen jëf. Sénégalais yi di métti nga ni fa duut sa baaraam loolay métti seen xol yi. toog sa ordinateur di tapé di kàcc kàcc kàcc kàcc suba ngoon di saaga di xuloo. ayez le courage de la bérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi.